mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu àq di leen baal àq wax ne marhaban bikum yegg si ngeen ci seen kër ah, lii nga gis ni muy wàllu produit yi nga xam ne mooy produit bio naturel lii mooy traitement cheveux li nga xam ne moom mooy tax sa karaw du damm du ruus sa sak bopp du xasan te boo koy diwoo sa karaw dana gudd ah, ba fi nga bëgg mu yem incha allah fa yem. Eh, mu nekk diw boo xam ne diw bu baax la ci wàllu karaw eh, mu nekk lu daj àddina ñëpp itteewoo ko ñëpp xam ko ñëpp bëgg ko jëfandikoo eh, muy produit bi nga xam ne mooy jëm ci wàllu bio naturel bii nga gis ni moo jëm ci wàllu frotté lépp loo xam ne dafa aju ci yaram yu metti wala tànk buy ruux wala tànk buy metti wala nga am rhumatisme wala nga am arthrose wala nga am nerf sciatique wala nga am douleur articulaire wala nga am yaram buy metti wala bopp bi metti ak fu mu metti mën a nekk si sa yaram incha allah boo ko ci diwee dina wér incha allah dana sedd te doo am benn fitna. Ah, bii nga gis ni muy wàllu saabu yi saabu yi ñun ñoo ko liggéey mu nekk loo xam ne bu fekkee ne sa yaram dafa ànd ak cat wala sa yaram di metti wala nga nekk koo xam ne doo nelaw soo tëddee guddi doo mën a nelaw boo ko sangoo di nga nelaw ba sa eh, nelaw jeex. doo am benn coono ci sa wàllu nelaw boo bëggee nelaw moom da nga koy da ngay nelaw même boo toogoon ñaar fukki at wala fukki at nelawoo it incha allah boo ko sangoo yàlla dina def da nga nelaw ba doyal euh, te képp koo xam ne yàlla def na si sa yaram cat nekk ci soo ko sangooyee dina dañ ba set incha allah képp koo xam ne da nga am peau grasse maanaam yaram buy niin boo ko sangooyee dina boo amee picc wala yaram buy xasan yooyu yëpp soo ko sangooyee incha allah da koy dindi ba mu set. yii yëpp benn bu si nekk euh, njëriñam. ci wàllu yaram la aju ak wàllu der képp koo xam ne sa yaram day am tache sa kanam di am tache di am ay picc soo ko sangooyee incha allah da koy dindi ba mu set su fekkee ne sa yaram dafay xasan ci biir sangoo ba pare sa yaram bi di xasan soo ko sangooyee incha allah dafay deñ ba mu set su fekkee ne wàllu coono ci da ngay ñëw war a nelaw bëgg a nelaw mu tëla incha allah yooyu yëpp yàlla la ci dala ci defal tawféex képp képp koo xam ne nag yaa ngi koy yaa ngi koy sangoo yàlla dana la def tawféex incha allah ci sa ci sa ci sa mbir kon mbir mi mbir la boo xam ne mbir mu baax la te sénégalais yi bëgg nañ ko ñu ngi koy jëfandikoo monde extérieur bi ñëpp a ngi koy jëfandikoo ñi nga xam ne bëgg nañoo euh, jëfandikoo ak euh, suñu bio bii nga xam ne mooy bio naturel foo mën a nekk ci àddina bi boo jokkoo ak ñun incha allah danañ la dimbale ba nga jot ci euh, saabu yi wala.